kun fayakoon nu laki xayra rasul a'uuzu billah bismillah wa ma tawfiq illa billah barke borom tuba barke borom tuba barke borom tuba mbokk jullit yi mbokk taalibe mbokk internet yi nga xamante ni yéen a safoo seen télévision bi di Majmahun Nurayni asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax te jëlal ci nuyoo beeg ziar bi sëriñ Muntaxa Mbàkke alxalifa di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te maa ndax wér ba naa li nga xam ne am na ko jëm ci liggéeylu maamam ji mu am ci la kawe njottam te yàgg ko ànd itam mbokku taalibe yi muy mel ni tey seen télévision mu ngi fii ci euh, fi nga xamante ni moo di Poroxaan war a ànd ak yéen ci li nga xamante ni moom moo di wàccaayu màggal poroxaan gi muy mel ni yéen a ngi gis euh, barab bi nga xamante ni moom moo féete suñu ginnaaw mu nekk euh, barabu Soxna Jaara Buso nekk wayjuru ku tedd kii di Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul kon ñu war a ànd ak yéen rek dégtal leen ani lan moo fi euh, tuuroo ci ay reportage ci li nga xamante ni moom moo aju si wàccaay gi muy mel ni actuellement pèlerins yi tàmbalee nañoo ñëw ci li nga xamante ni moom moo aju si màggal gi day mel ni jot nañ fi def yenn si ay reportage waane itam ngir dégtal leen rek ani lan moo di taarixu dëkk bi ndaxte am nañ fi jot nañ fi am ak waxtaan ak ñenn ci ñi nga xamante ni ñoo di euh, kilifa yi barab bi waane itam nekk ay kilifa ci dëkk bi kon rek ngeen ànd ak ñun ñu dégtal leen lenn ci li nga xamante ni moom moo fi tuuroogum ci ay reportage bismillah خيرا salaamaaleykum papa ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax mu mel ni dañoo gis nga ñëw uh, génne ci barab bi nga xamante ne moo di barab Soxna Jaara ñu lay laaj rek ani maanaam boo boo ñëwee fii nga xamante ni moo di Poroxaan ani ban yëg-yëg nga amaat dolli ko waat si li nga xamante ne moom moo aju si wàllum yoon wi bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatuhu kontaan lool rek booleeg uh, Soxna Jaara moom fii moom ku fi ñëw moom soxla soo am wala loo am rek. boo ko ñaanee soxna jaar defal la ko. barke Seexul Xadim. maanaam man yëg-yëg bi ma fi am man dama koy yëg ba nga xam si man su ma ñëwee damay lot si wax barke Seexul Xadim. jërë ngeen jëf kontaan naa lool jërëjëf. jërëjëf ku baax jërëjëf am na solo bisimilah muy mel ni ba tey rek ñu ngi ak keneen ah, si ñi nga xamante ni ñoo di pèlerin yi nga xam ñu ngi ñëw fii ci Porokhane ah, di amal ay ziar ak yu ni mel. mu mel ni ñi ngi taxaw ak kenn si ñi nga xamante ni ñoon ñoo yor euh, li aju si wàllum euh, doxalinu jàkka jeeg yu ni mel ak kon xanaa rek ñu jox ko ay kaddu mu nuyoo te ani wax ani lan moom moo di ay kaddu yi nga xamante ni moom moo di yëg-yëg yi nga xam ne am na ko nga xamante ni moo aju si wàllum euh, màggal Porokhane bisimilah jawrin waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi nag Serigne Mouhamadou Mountakha Bassir mi nga xamante ne moom la fi Serigne Touba teg yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér waaye nan lañ koy ñaanalee Serigne Bass Abdou Khadir porte parole yoonu murid yàlla na ko sama borom di defal wér ak wérle waaye nan lañ koy ñaanalee xarifatul am li xarifatul Baye Faar yàlla na ko sama borom yàggal te ànd ak wér waaye ñu ko fiy ñaanal sama la ci leen te nag moom dañ ciy ànd ak mbégte goo xamante ne mbégum yàlla lañ ciy àndal ndax la goo xamante ne ci jëmam moom ngeneelug yàlla la goo xamante ne jaara ba na nag ñu ci yaatal ki nga xamante ne moom moo nga xamante ne Sëñ Muntaxa da ka nangul boppam bañ nag ba da koo wax ni man aw ma leneen lu gën lu du borom Tuubaa waaye ki nga xamante ne moom mooy lépp borom Tuubaa nag di soxna jaariyatullaahi waaye na jaara bañ ci doon waxtaan fii ak ba fañ jëm du jeex ndax genn jigéen la goo xamante ne dañ na ko woon yaa ngi jëm sa kër borom kër te newoo newoon na fo us newoo fa leneen lu day kaamil alxuraan kooku xam nga ne kon kooku ngeneelug yàlla la te it poñuwul borom këram di ko tey nga jox ma dépasse forfos déedéet génn jigéen la goo xamante ne da doon tarbiyu borom këram doon jaayanteeg borom këram ba tax na nag moom màggal gi ñun dañ ci ànd ak mbégte bu wér a ndax mbégte bi mooy mbégum yàlla la màggalug soxna jaare it màggalug yàlla la ba kay koy màggal ku nekk day mel ni sax borom ngay màggal mu doon màggal goo xamante ne tawféex dëggum tawféex la ñun nag dañ ci ànd ak mbégte bu wér mbégum bu wér sax soxna jaar genn jigéen la génn jigéen la goo xamante ne lu tax ma ne génn jigéen la moom moo ki nga xamante ne ci jëmam bu jigéen ñi ñëpp doon maase woo du ko rey du tax ñu mel ni moom déedéet ndax lu tax duñ mel ni moom moo doon jaamug yàlla boo xamante ne ci jëmam daaw daan def dara lu nekkal yàlla bu yàlla dong la nekkoon daaw daan julli te jàpput musta julli te wérdut boole koog sangam tuuba daal di wër këram buubal sax na jaar wal ko mu daan tuwal moo tax daara yëpp daan koy ngap tàngate moo tax ndokk ñun bañ amee kii nga xamante ne moom moo di yaayu Seexuna al Xadiim bañ amee ki nga xamante ne ci jëma moo ñu indi ku yëlëf jant ak weer ndax soxna Jaaratullaahi moom moo fi indi koo xamante ne ci jëma moo yëlëf jant ak weer bisimilah jërëjëf ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax xanaa rek di la laaj ani lan moo di sa tur ak fi nga xamante ni moo di Porokhane boo fi ñëwee ani lan moo di sa yëg-yëg jëm ci bés bi nga xam ne ñu ngi koy waajal mu ni màggal Porokhane di bésub bu ñuy màggalal ah, Soxna Jaara Buso asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu di nuyu sëñ Mountakha Bassirou di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànn wér màggal gi nag di tax soxna jaara ñu koy defal soxna jaara moom am nga fii bi mu koy sanc dara ne fu waaw wax dëgg yàlla ne loolu nag moom loolu nag boobu fekk na ju fekkul sama judd sax mm-hmm. waaye nag ci li ma fekke rek ndax fii de bi ma fi tàmbalee màggal si muy 2002 booba sëñ Moussa Bassirou moo fi newoon muy xalifa si moo nekkoon xalifa sëñ Bassirou waaw moo fi nekkoon ak mbokki teel bi ak rakkam yii waaw waaye nag wax de yàlla nag màggal gi nag wax dëgg yàlla de ah man de wax dëgg yàlla ni koy mbokk julli di waajalee ah sama xol seet na ji ndax soxna Jaara moo ko liggéey lii nga gis muy yëpp soxna Jaara moo liggéey waaw jumaa ji lépp suñ suñ soxna jaar moo ko liggéey kon nag kooku danañ koy ñaanal rek saa borom yokk ay leeram waaw di ñu di ko ñaanal euh, saa borom yokk ay leeram xaar ko àjjana waaw di ñaanal suñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu ak mbokk teel bi yëpp ñu ngi ñaan nag màggal gi yàlla nañ ko fekk ay ren ren waaw te wax dëgg yàlla màggal gi moom neex na macha allah waaw di ñaanal suñ Musaa Naawel moom suñu Musaa Basiir mu yàgg fi lool tànn wér ah soxna jaar na moom wax dëgg yàlla day ni mu sonnee wax dëgg yàlla ni mu sonnee fii li mu fi daj amut génn jigéen gu gu ko daj ci yoonu murit mu mel na moom nag yombut ci génn jigéen moom dama laa gis mu daj fii li mu nii waaw waaw di leen ñaanal nag yéen ñi nga xam yéen a yor eh, rajo bii di leen ñaanal saa borom gudd fan ak wér waaw ak lépp lu ngeen bëgg rek saa borom dafa leen ko waaw wax dëgg yàlla màggal gi moom ah nii rek la waaw amu tànk gi naw tànk kanam rek la am liggéey sëñ Tuubaa moom amul tànk amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ñaan nag déwén daal moom ñu ñaan rek mu gën a mbooloo mi gën a takku nii aw mu gën a neex nag waaw wax dëgg yàlla man de man de wax dëgg yàlla màggal gi ñàkk fee ñëw na wóorul waaw ñàkk fee ñëw wóorul jërëjëf ci kàddu yu am solo yooyu noonu. man nag maa ngi tudd Moustapha Diop dëkk Daaru Salaam Typ. dëgg la waaw jërëjëf jëriñ Moustapha Diop ñu ngi lay euh, sant bu baax a baax ci kàddu yi am solo yooyu di ñaan euh, soxna Diarra Bousso euh, fayar la boppam barke xas day incha allah rabbi. خير waxtaan ci soxna si ngeen xam ne daal barab bii moom euh, barabu amukaay yàlla la te barabu wutukaay yàlla la te it bokk na ci barab bi gën a gaaw ci faj aajo euh, dafa am ñun dañ fiy yàgg ndax ren ñett ren mooy suñu ñetti at yoo xam ne dañ fi am un mois balaa màggal gi euh, daaw bi nekkee ci liggéey sëñ bi dafa am génn góor gu ci barab bi ñuy waxtaan ci mbiri soxna si mu tëb tëb ne ma si de murid yi daa bëri ñu ko ciy fàtte waaye xamuñu ne moo gën a gaaw waaw sëñ beeg ñëpp nag laa wax loolu la wax sax moom soxna si ne moom moom sëñ boobu ne ma sëñ beeg lépp laa wax ndax loo ko fi defar rek da nga ko gis te fii moom neexul woon fi ci ndigalal sëñ Tuubaa mhm. wax na ne bi mu fiy ñëwit comme ni suñ mbokki pëli di gën a yàgg ci àll di ko gën a miin mhm. bokk nañ ci ñi ko leeral barab bi mhm. wax ko moom moom sëñ Basiru bi muy ñëw fii di ko sañ si nga xam ne boo yëf yi mel woon nii te neexul woon nga xam ne ak jaayante rek moo waral lii lépp am fi tey nga xam ne loolu lépp loo ci amaat rek day delluwaat ci waa kër sëñ Basiru ñu jaajëfal leen ko sant leen ko bu baax a baax mm-hmm. yéen ñi ngi leen jaajëfal bu baax baax li liñ fiy liggéey ak li ngeen def ni di ko liggéeyal soxna si te Sëriñ Tuubaa tax yàlla neen ko saa borom fay gën a yaatal seen site bi ba mu gën a jëm kanam gën leen def ay ndaw yu gën a kawe li ngeen njort lépp saa borom defal leen ko barke Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra jërëjëf Fall waaw jërëjëf uh, xanaa ñu lay la ziar di laaj rek ani lan ngay yëg jëm ci ginnaaw boo ñëwee fii si barabu Soxna Jaara ziar ba noppi uh, ci uh, li nga xamante moom moo aju si wàllu màggal gi nga xamante ñu ngi koy waajal di màggalu Porokhane bismillah waaw ah, noo ngi di leen gërëm tey ñaan sëñ Muntaxa yal na fi yàgg te wér ñaan yal soxna jaara yal nañu yàlla taas ci barke te moom royukaay la génn jigéen meluñ ni moom yal nañu yàlla taas ci barke suñu xol sedd na guy ci suñu bopp itam waaw yàlla taas ci barke te yéen ñi koy def ngeen yàgg ko yàgg koo fekke barke sëñ Fall waaw kay jërëjëf yaay ba ci kàddu yooyu noonu am na solo yu métti yu soxna jaara daan liggéey sa bu njëkk ba euh, sëñ tubaa daan na ñëw dimbali ci soxna maam jaara daal di delluwaat ne ko bu kekkeen xamee waay wax na loolu wax na itam ne baay aw ma baay nee na sëñ maam Mor Anta Sali dafa gën a am xam-xam si góor ñi gën cee mokkal alxuraan gën cee am xam-xam ab alxuraan moo tax ma bàyyi la ko sama bopp moom sëñ Touba wax na itam ne yàlla moo ma may alxuraan nee na yàlla moo ma may alxuraan moom sëñ Touba nee na alxuraan nee nee na du ko jàng nee na ku bëgg a dal alxuraan alxuraan day ñëw ba ci man moom sëñ Touba ne ma diw doomi diw ak diw damaa bëgg a jàng ma jox ko ci ndigal mu soog koy jàng moom sëñ Touba nee na xarafi xasaayid yi wenn xarafu nekk mi ngi jóge lawxul mahfuus ñëw ma ne ma bind ma ma bind ko muy njëriñu doomu aadama yi àddina ak àllaaxira kon nag barab bii dañ ko war a waggal gën koo fonk comme li sëñ mu àllaaji baara waxoon nee na barabu soxna jaara bii nee na soo ñëwee difi fi siyaar si di nga fi fekk sëñ Touba wala sëñ tubaa fekk la fi te loo fi ñaan na nangu moom ku ko xam ku ko fonk la kon nag ñu gën koo waggar gër koo fonk te xam ne soxna Mariama di soxna Jaara mi mooy soxna Mariama mu njëkk ma waaw yal na yàlla yokk xewal gee wér geeg ma ñi may ñu màggal a jàmm ak salaam musal ñu si accident yeeg tolofa tolofa yi te lu fi waaye ñaan yal na nangu yàlla yiir ñu yërëm ñu ku fi bëgg doom wala borom kër wala soxna wala liggéey wala nga bëgg jàmm ak salaam wala foo dëgg ak looy lijjanti muy këyit wala tukki wala bëgg a ñibbisi yal na ko fi yàlla dogal ak tawat yàlla tawat saafara tawat yëpp saafara bépp jàngoro bi jaayee xayri alamina bi barakata saydina Muhammad salaam man maa tudd soxna maam jaara bëgg Fallou waaw ba tey mbokk internet yi muy mel ni ñi ngi fii ci uh, nga xamante ni moom moo di teenu uh, Soxna Jaara Buso bi ñu war a dugg rek uh, amal ay lenn si ay laaj ak ki nga xamante ni moom mooy ki nga xamante ni moom moo yor li aju si wàllu barab bi kon bismillah bu ko defee. nu la waaw euh, bismillah mbokk internet yi muy mel ni ñu ngi fii ci euh, li ngeen nu ma leen ko waxee léegi rek ci barab bi nga xamante ni moom moo di teenu soxna jaara Bousso bi ñu taxaw ak ki nga xamante ni moom moo yor li aju si wàllum euh, organisation barab bi lépp lu aju si wàllum cet geeg setal geeg lépp li nga xamante rek moom moo aju si wàllum barab bi ak nekkin gi ñu bàyyi ko rek mu nuyoo joxe turam bu noppee dégtal ñun li nga xamante ni donte as la sax ci li nga xamante ni moom moo di taarixu barab bi bisimilah papa. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu di nuyu waa kër gi yëpp tàmbalee ko Cheikh Mountakha Bassirou di nuyu suñu bas Porokhane mi xam ne ci ndigalam ñu nekk moom la Cheikh Mountakha bàyyi muy lépp eh, lépp luñ ciy def ñu ngi ko yëgoog moom. te lépp lépp lu fi def rek moo ñu koy sant mm-hmm. ci ndigalam lañuy ñuy ci kàddu la ñuy waxee mm-hmm. di ko sant bu baax di ko ñaan yàlla mu yàgg ci loolu te ànd wér ak ay kilifaam yëpp mm-hmm. barke Sew Xadim di waa man ñoom nooreen yëpp di di seen teewaay di rafetlu euh, liggéey bi mu ngeen koo doxalee waaw ah, jërëjëf ah, ci kàddu yu am solo yoo noonu xanaa rek las euh, lan lan lañ mën a jàngee ci li nga xamante ni moom moo aju si wàllum euh, taarixu barab bii di teenu Soxna bu Bousso. waaw ñàngat bi weesu mooy comme ñii ñii jigéen ñi rek kenn ku ne li xam nga benn jigéen liggéey lu toll nii. ku nekk boo fi ñëwee rek war ngaa yëg leneen ndax ñëpp dajee fi ngir kenn te mu liggéey fi liggéey boo xam ne moo liggéey àddina bi yëpp ndax ku meññ seen Touba rek meññ nga lépp. Mhm. kon kon mooy fii fii mooy Touba Touba mooy fii. Mhm. kon léppi soxna jaar la kon kon kon kenn ku nekk boo boo jugee di ñëw ci soxna jaar. Mhm. da xam ne moo moo mooy mooy kii defar àdduna bi. kon boo ñëwee da ngaa war a defaru. war a yëg ne kii lim liggéey yàlla fay lu mel ni war nga cay am loo ci jëlee yow. ja jàngat gi mooy loolu ndax kenn ku nekk boo ñëwee war nga am loo jàngatee fii ba boo demee nga jëfee fi mu même bu dee téeméer la nga jënd nga jëfee nga jëfee juróom-ñaar fukki. fanweeri la des nga di ci góor la ci des. waaye nag ñëw boo fi jëloo fi dara pertement la ndax it du njëriñ. te fii kenn ku fi ñëw rek war ngaa jàngaat sa bopp bu baax a baax nga xam ne sëñ Tuubaa nee na boo ma fekkul ma fekk la fi. te it li ko waral lépp mooy liggéey soxna jaar. pour bëgg a feeñal liggéey soxna jaar xam lan kan mooy soxna jaar. ku fi ñëw rek war ngaa jéem a xam kan mooy soxna jaar. waaw ah, jërëjëf si kàddu yooyu am na solo maanaam du ñàkk ni dina am ñoo xam ne dañuy dégg li nga xamante ne moo di ah, teenu soxna jaar waaye nag xamul lan moo ko sabab ani fan la euh, lan lan moo indi teen boobee année lan lañ mën a jàngatee ci loolu noonu lan lañ mën a lan ñu mën a xam lan moom moo euh, sàkku taba euh, amelu li nga xamante ne moo di teen bi. xam nga ku dund fanweeri at ak ñett. liggéey fii liggéey boo xam ne nii ci wàllum ndox. liggéey bu nekk am na yenn bu nekk am lu muy lu muy jëriñ waaye boo liggéey ci wàllum ndox boo xam ne ni maanaam histoire la boo xam ne du dañ ndax. booy root ba ndox manqué nga jug fajar rek fenn nga di ko fa rooti nga di ko fa uti di ko jaan jamono boobu ndox yomb mu dem tool éteen bu gën a sori ndax bëgg a bëgg a jëriñ doomu aadama kese kese ndax mu tànn ko def ci lim ci def ba barke wàcc ci tey kenn ku nekk xa di ci yëg sa bopp liggéey soxna Diarra mel noonu ndax it barke liggéey moo waroon mooy parce que dafa jaayante pour dimbali jaam yi sa dim euh, pour pour jaamoo ko yàlla ci diggante moom borom këram kon kon su loolu amee kenn ku ñëw roon ndox boo ñëwee boo fa jugee rek war nga am loo jàng si diggante sa borom kër am loo fa jëlee doo doo mën am li mu am nag waaye da nga am ngërmande mm. waaw ndax moom moom moom mi la war a gërëm su gërëmee ci ci ci wàllu moog diggante moom sëriñam wala diggante moom wàllu moog ay waajur su ko gërëmee moom lu mu tuut tuut bu la gërëmee yàlla mën laa may lu jege li waaye doo am lu ni mel nag moom waaw moom raaf na waaw jërëjëf si kàddu yooyu la day mel ni leer na naa ñi macha allah te am na solo kon mbokk téléspectateurs yi mbokk internet yi comme ni ngeen ko xamee rek kon dañuy euh, nes tuut rek ñu àndax yéneen ci yeneen i barab yi nga xamante ni mu ngi fii ci Poroxaan rek dégtal leen fa ani lan moo di taarixu barab ba waane itam lan lañ fa mën a jàngee bismillah kun fayako nulaki xayra